bismillah fii nii ak daara yàllaaw sali baqa bi fiq yàllaaw yaa man lawal yaa man laa sharika lahu wasi wa ma liwaat li fiq yàllaaw وجاتك اليوم يا رمانهم تجيا فسي بما ستوفي دنياك يا الله أزاري مراسي أيو برامتي ألا ألاقي الدر منك يا الله sëriñ bi ñu ngi lay siyaare bu baax te di la dalal te di la jéggulu it coono yi di yëkkati ay kàddu rek ngir kàddu yu mbégte yoo xam ne bàyyi koo na ci sëriñ Mouhamed Seck mii nga xam ne moom nga fekk si fii tey ak mbooloo mii mu am mbégte mu rëy rëy moo xam ne tax na mënut a yëkkati kàddu yooyu ci mbir yu bëree bëree bëri ndax tey jii mën nañoo wax ne euh, jataay la boo xam ne Cheikh Mamadou Fadal bég na ci soxna Awa Bousso bég ci soxna Marema Kunta bég ci waaye rawatina nag sëriñ Mouhamed Seck taqillah mi nga xam ne moom la sëriñ Touba joxoon cër bii waaye rawatina waajuram sëriñ alxaaji Fadlilu sekk taqe kenn ku nekk xam sa diggante ak moom kenn ku nekk it xam digganteem ak Cheikh Amadou Fadel yi ci aju nag dafa bari ndax kër Cheikh Amadou Fadel xam nga ne yaatu na yaatu goo xam ne képp koo ci wax ne demal def liggéey bii mu def ko nu kawe njort waaye bi nga xoolee jëmmam ji nga tànn ko sant ko liggéey bi moom mbooloo mii loola bëgg koo dimbali rek moo tax moo tax nga def ko ak ci sang mbaax kon loolu lu rëy rëy la loo xam ne sedd na xol lool te kawe njort kon du ñu def lu dul ñaanal la sunu borom yàggal la fi te wéral la ba noppi it sant ci cant gu kawe njort rawatina cantuk taalibe yi ak seenug dagaan te xam ne ñoom day duñ ñenn duñu lenn Sëriñ Tuubaa dong lañ moo leen ñor barab bi nga xam ne mooy màddina Mbooba di barabu Cheikh Amadou Fadal nga xam ne bokk na ci tool yi nga xam ne Cheikh Amadou Fadal waatoon na ne ci ne lii nga xam ne mooy liggéey jumaa ji mbay mii muy bay su naree jëm fenn fudul ci jumaa ji luñ bay yàlla na mel ne xorom te fii ngeen ñëw tey ñu sant leen fi mu bokk ci tool yi nga xam ne bokk na ci yi gën a mag yi liggéey jumaay Tuubaa te kat képp koo xam ne liggéey nga fii dafay fekk liggéey bu njëkk ba rek te booba kat Serigne Touba dafa waxoon ne ku ci feeñ dootoo réer ku ci réer dootoo feeñ Cheikh Amadou Fadel tamit di ñu feddali loolu te nattable ne yaay jëmmam rawatina nag nga yëkkati sa jéego yi ñëw fekk si ñu fii loolu moom dafa mel ne ëpp na sax nag Mbakke kon tey jii dafa mel ne bisub taataan la boo xam ne. suñuy a ngi nii raxas nañ leer nañu ne boo waxee Cheikh Amadou Fadal wax rek soo ko defee mu duy ndab yëpp aajo yëpp faju taalibe yaa ngi nii ni ñu ko sëñ Mouhamadou Seck taq waxe amuñ benn lu ñu déglu lu dul jóg leen rek ñu jóg ñëw leen jëf rek ñu jëf xooluñu lenn dégluwuñu lenn bàyyiwuñu xel lenn lu dul liggéeyal sëriñ Tuubaa kon sëriñ bi kàddu yi cant la yu fees dell dell dell dell yoo xam ne jóge na ci xol te munta génn ci làmmiñ kon ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di taatan di ñaan sunu borom tabaraka wa taala li ñu fi wut si ñu am ci lu kawe njort waaye it lépp it ñu fasaaleel la ci it yàgg ak wér ngir jëm Cheikh Amadou Fadel nga ñaaral ko moom it moom mi nga xam ne mooy jëwriñi ji nga xam ne moom nga sant liggéey bi ngir mu doon jëmm joo xam ne noppi na ngir liggéey ngir déglu ndigal noppi na yit ngir jëfe ndigal ak mbooloo mi mu àndal mi ngi nii di dégloo rek Mbàkke loo ko wax walla loo ko sant wala loo koy bëgg sant yëg rek de moom la ci am su ko yëgee dana ko defee ni nga ko bëggee da nga ñaanal ko suñu borom aar ko te aar ñu ñun ñi fi teew ñëpp it te defal ñu ay xéewal ak kattan akum xel moo xam ne saa su ndigal jibee ñu mën a liggéeyal Sëriñ tubaat ni nga ko bëggee ba soxol sedd ndax loolu rek mooy faj suñu aajo ñun ñëpp ñu lenn lu dul taalibey Sëriñ Tuubaa yoo xam ne suñu déggee ndigal rek jëfe ko te loolu mooy faj suñu aajo kon kàddu yooyu mooy kaddu yi nga xam ne Sëriñ Mouhamed Seck waxoon nañu dalal la boo ñëwee eh, dalal la ci turam ak turu taalibe yi nga xam ne ñi ngi fi eh, di jëfe ndigal li mbokki jullit yi mbokki taalibe yii fi teew eh, sëriñ Abo Baraka moom Cheikh Mouhamadou Fadal agsi fi ngir liggéey bu ma joxoon sëñ Mouhamadou seq mii e, doon ko saytuloo tool yi fi Medina Mbooba ngeen xam ne guddi na wante jëmm ji daf koy xoole baayam di maamam doonnu ko daf koo doon kon ginnaaw bi nga xamee ne jox na ko liggéey bi te mu sawar ci lool te ànd koog mbokki taalibe yi nga xam ne si ñoom la ko sëriñ tubaa booleel te ñu nangul ko lool nag te nangul googu ñu ko nangool xool ñu lenn ci moom lu dul sëriñ Tuubaa te ñu gis ci moom sëriñ Tuubaa nañu gisee ci moom sëriñ Tuubaa ni leen sëriñ bi gën a firndeele na leen mi ngi nii mooy maamam mooy baayam na ngeen ko ne dàkk rek jàpp ko te xam ne bu ngeen ko jàppee jàpp ngeen maamam jàpp ngeen baayam bu ngeen jàppee maamam ak baayam jàpp sëñ Tuubaa du leen jëme fenn fudul ci lu sëñ bi bëgg du leen wax lenn lu dul lu sëñ bi wax du leen xooloo lenn lu dul lu sëñ bi xool kon mu ngi nii di jëmm joo xam ne sii daf leen di seeree tuuti lu ngeen mën a xam ci moom la ca des nag ma nga ca kanam la ca kanam nag ka am pas-pasu fekk la ca kanam tey jëfi ndigal li mooy gis xéewal ya ca kanam sëñ bi na sant na leen bu baax fekk na fi mbokki mbusoo bi ak mbokki mbàkke yi ci dal bii nga xam ne sëñ Mouhamadou Seck laa mu mag ma nga xam ne si lépp mooma ginnaaw dogalub sëñ Touba ba mu la mu def ca moom te muy sëñ Touba muy muy koo xam ne neewoon na li ma def ci nit ñu di ko topp su ma ko defoon ci garab ñu toog fa te duñ fa jóge loolu nee na moo gën a yomb fuuf kon nag yàlla baaxe na leen ngeen ànd ak sëñ Mouhamadou Seck mii ñëw ci tool sëñ Abou Baraka mii moom seex Modou Fadal nga xam ne si dara ñoru ko lu may liggéeyal sëñ Touba dara ñoru ko lu may liggéeyal Cheikh Mouhamadou Fadal waaye juróom ba te ngeen am xaas mu ànd ko yéen wax ko seen jëwriñ mu wax leen ko ngeen nangul ko nee na biir na ne sëñ Fall dana fa yéene ajo kenn ku nekk nag ku ñëw ci tool yi ren na nga xoolaat sa bopp balaa déwén incha allahu sëñ Fall dana la defal leen nga bëgg. kenn ku nekk nag na nga def natt ci sa bopp boo wérutoon da nga wér boo wérutoon da nga yor boo amutoon xéewal say xéewal dana dolli ko sëñ bi ñaan na ko ca fii la ko ñaana ci barabu Cheikh Modou Fadal ca lu mu fi ñaan sëñ Fall dana ko def xam ngeen lii mu def tey la ko mas a def mooy de 9h wala 10h ci guddi mu bàyyi yittam yëpp ñëw fii kon sëñ bi ñor nga ko ñor nga ko taalibe sëñ Tuubaa ñor na ko ndax sëñ Fall kon loolu leen bàyyi woon taalibe yi donga yi sëñ Tuubaa ndigal sëñ Tuubaa te it def na la ci jibaam def na la ci jubaam ku la def ci jubaam nag garanti dal kon nag na nga dalal sa xel bu baax a baax te ngeen ne xam ne mu ngi nii rek mu ngi nii moom loolu la sëñ bi joxoñ ki leen sëñ bi joxoon nag mu fekk ngeen ànd ak moom ngir jëm sëñ tubaa ne leen ko dañ dan na rek te bañ koo boole dara li sëñ Fall waxoon ne dan na sëñ tubaa bañ koo booleeg dara bañ a ngistal bañ a xool kenn bañ a xool leen nay sëñ tubaa ci yéen rek mooy moom i sëñ bi rek la xool muy sëñ tubaa ci moom jërë ngeen jëf sëñ bi xolam sedd na kenn ku nekk daal na nga yokk ba yëg ne yokk nga li ñu bay mu néew mu bari nañ ci génn asaka ji ci war te li ci des yàlla na barkeel bu barkeelee nag lépp mën a barkeel kenn ku nekk la nga yëngu itam na barkeel lool ba nga mën caa liggéeyal sëñ Tuubaa jox ci sa njaboot ba seen xol sedd sëñ bi nag la mu waxoon ëpp na lii gën naa postéwu waaye dafa guddi waaye konoon ñu dugg ci yeneen domaine ngeen loxo yi sëñ bi ñaan te seen pas-pas bi ma sàkku ci ngeen ñaanal sëriñ bi yàgg fi te wér jërë ngeen jëf amiin amiin amiin malik yamini waaqal bisaara yaa malike bilaa isaan bimbijo din minka yaa allah خدست سريا يا قدوس متليا عني وعن كرادي tuddaala yàllaaw anta salaamu yaasi salam takun liyaamin uyoo bi nafsi bi tay yin minka yàllaaw anta salaam jërëjëf Seex Murtada euh, jataay bii nga xam ne moom lañu am sunu xel war na cee dal bu baax a baax ñuy xolit war na cee sedd ndax su fekkee ne dangay liggéey ab liggéey borom liggéey bi ñëw seedeel la liggéey bi yombut ndax li nga xam ne moom la sëriñ Alxaaj Jóob wax léegi ne sëriñ bi kat lii mu def ci waxtu wi mu ñëw li mu koy def bariwul kon liggéey bi ñor na ko ki muy liggéey lay ñor na ko ñun nag ñun murit sunu sëriñ Touba sunu sëriñ dañoo xàllal yoon woo xam ne dañ ci mën a jaar jàll wuuteeg yeneen yoon yi muy alxitma xitmakat yi nag sëriñ Touba da leen a tagg wax ci ñoom loo xam ne ëllëg ay tànneef la doon ñetti mbir gis nañ sëriñ bi wax ko ci xidma yoo xam ne néewaa a nga gis mu wax ko mu ne ki nga xam ne dafay liggéey dafay xidmaal sëriñ bi te fonkul jaamu yàlla lool du ko tey tabbi àjjana waaye danañ ko isaab loolu it bëriwul sëriñ bi lu mu fu koy waxee ki nga xam ne nag dafay xitma boole kook jaamu yàlla ëllëg ci ñi may siggal ñi may sagal lay bokk bu ëllëgee ki nga xam ne nag xitma wut jaamu wut yàlla jotewu ma ak moom dara ñu teqale bu mit bu mujj bi dafa wax ne ñi nga xam ne su waxtu jotee ñu jooxe seeni waxtu bu koor jotee ñu koor bu ñu am mën a dem makk dem bu ñu amee asaka génne ko ba noppi it saa su sëriñ bi wootee ñu ñëw ngir xitmaal ko te mooy lii am na ñoo xam ne waxtu liggéey lañ nekk ñi ñu bàyyi seeni tool ñëw am na ñoo xam ne ñu ngeeg seeni procès ñu bàyyi ko am na ñoo xam ne mën naa am ñu am wéradi gu ñu yëg ci seen yaram sax du leen tee ñëw jël seen temps ñëw ci àll bu mel nii ngir liggéeyal sëñ tubaa ngir yàlla te amul lenn luñ ci séentu ci ak pay gu teew loola mooy xidma nga xam ne dangay indi saw ñaq ak sa alal ak sa doole ngir jëmmi yàlla sunu borom tabaaraka wa taala sëriñ tubaa nag nee na ñooñu lii la ma ci sama borom dig bu ëllëgee mu ne la in xadara yowmul baari wa duriba siraati fawqa naari sëriñ Touba nee na ci masaalikul jinaan ñu jëlee siraat gàcc ko ci kaw jahannama sunu borom teewal mbindeef yépp wax na ne naadaa munaadin ayna ahlul xidma dafa am wootekat bu mag buy woote boo xam ne danaan ana ñi ma doon liggéeyal man sëriñ Touba lil muslimina fa ajaabu ajmain nee na jullit yi ñi nga xam ne ñoo ma doon liggéeyal ñoom dañuy mën a wuyu dañuy naan ñi ngi nii ku ca bokkutoon nag doo mën a wuy sëriñ bi nee na lu ñu leen di wax xiila lahum umdul janna bi xayri mihnatin wa xayri fitna yéen kat jaar leen ci mbedd mii dugg àjjana te bu leen jaar siraat wala fenn te bu leen am benn coono loolu ci garaat yi ñu teew ci liggéey bii ci la loolu du du lu woyof beneen bi mu ne su ëllëgee ba sunu borom di ma puukare woo tamit ñi nga xam ne muy lu bi njëkk bi ma njëkkoon a wax nga dañoo fonk jaamu yàlla tey sàmmonteeg sariya waaye téewul nag su su ma wootee wala suñ su ma liggéeyal jotee ñoo cay man nee na ñooñu bu ëllëgee bu bu bu yónnente bi sallallahu alayhi wasallam jotee drapeau ràmm bi ba ne ma ana xaadim ma ne maa ngi nii mu jox ma sama cër ca lam ma sedd nee na su boobaa ñooñu dañ naan ma toogal ma toog ñuy jóg di ràmme di ràmme di ràmme di ràmme bañ ne waaw ñii nga xam ne biñ tuddee seen kilifa gi ba léegi ñooy jóg ñooñu ñii ñooy ñan ñu ne ah ñii kat ñooy mboolam xaadim rasul ñooy xitmakat ya dëgg-dëgg sëriñ bi ne ñooña ñoo ma sagal ñoo ma siggal te képp koo xam ne jaar nga ci yoon woowu am nga sans su mën a bokk ca loole kon nag loolu dul lu woyof loolu kon cëri ëllëg la yomal xiyam waaye nag cëri àddina si muy képp ko xam ne fonk nga ndigal fonk joxe addiya fonk ñaq ngir yàlla jafe-jafe àddina boo ko nattee li nga koy am du bëri ndax li ñuy wax stress doo ko am mooy sab xol nëx-nëx du ca nekk Sëñ Tuubaa dong nga ciy nekk foo toll yaa ngi yéene sa bopp jàmm di ko yéene say morom di ko yéene say bokk ndax doo tal leneen lu dul sëriñ bi sa xol sëriñ bi rek a ciy nekk te loolu mooy lii amul lenn lu ñu fi boole lu dul ngir yàlla Sëñ Tuubaa rek moo ñu fi boole li ñu fi indi lenn la muy lii nga xam ne mooy ndigal li mu jeex ñu dem loolu nag menn mbooloo amu ko Sëriñ Tuubaa rek moo am mbooloo moo xam ne seeni xol yi benn lañ su ndigal jotee ñu am lenn luñ bëgg dul jëfe ndigal suñ ca noppee noppi nañ ci ngir yàllaa tax ñu koy def kon nag alhamdulilahi rabbil alamin ku bokk ci mbooloo moom war ngaa sant yàlla liggéey yomb na waaye am na ku la joxañ yoon wa jafe na kon suñu suñu borom taw feexale ñu am ay kilifa yoo xam ne ñu ngi wane yoon wi di ñu ci giide di ñu joxañ yoon wi sant yàlla war na kon yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak seriñ Mohamed Seck mii tamit mu ndigal gii nga xam ne def na ko di leen ci yóbbaale loolu lu mat a sant yàlla la bu baax loolu yi nag mbir mu nekk dafa am lu ko waral mooy su fekkee ne waajuram da ko toqi ci lii bàyyee ko ko maamam toqi ko ci bàyyee ko ko amul lenn lu mu war a def lu dul tege ci yoon wa ak mbooloo mi nga xam ne moom la ko suñu borom booleel wad udlub wala tajarra min madlibi fa afatu taalibi adiya jarra Sëriñ Tuubaa nee na na nanga sàkk lu baax te bul yokkat gàkki-gàkki sàkk lu sàkk lu baax mooy yokkat ala taral xabla li takraar yi fi saxrati sama yoqat asharat bu kenn ne santaana yi dafa jege wala ndigal yi dañoo jege wala tool yi dafa ki déedéet loolu bokkut ci melokaanu taalibe Sëriñ Tuubaa nee na xanaa gisu leen ak buum yàgg gi mu yàgg a baamu ci pindub teen bu tëx ni koy ni mu koy bënne te buum kat woyof na woyof goo xam ne waru koo mën a def noonu ana tax mu def ko yàgg gay baamu kon ku yàgg ci mbir ba man faraxal baaba walaj ja walaj da ci amuk ubbiku te danga am tonog àddina ak te ci liggéey suñ rek ci lañ mën a amee tex àddina man ci amee tex ak alaxira te yoon wi ñu jaarale méttiwut mooy yoon wii muy ma tey lii ñu def muy ñetti fan yi ak ñaari fan yi nga fi am day ku ci xamoon lim lay jural ëllëg ak ñi ñi nga xam ne ñoo la jiitu di say mbokk ak say wajur ni ñu lay ñeewee ci li nga nekk te sëriñ bi moo ko wax nee na ñi nga xam ne ñoo faatu ñi ngi ñuy gis ñoom ñëpp di suñuy waajur suñu alaaji fekk suñu alaaji fàllu sekk mii nga xam ne mooy kilifa sëriñ bi mi ngi janoog ñun fii ci lu wér te di bégge jataay bii te xam ne lim bàyyee ak njabootam ñi ngi ci suñ tubaab nee na ñooña li leen gën a yitteel ci weesuwut lu dul dellu si àddina su walaw suwayhatan faxat li yaxmalu daalihatan tanfahum in qafalu donte benn waxtu la ngir ñu jëf loo xam ne danañu dana leen jariñ su ëllëgee bu ñu demee kon faxtani man baax ya xumrin qad mada yow mi fi des am occasion bi bul ko rate mukk foo dégg ndigal demal ndax nga jariñu jariñ say mbokk jariñu àllaaxira ak kañ jëm nga bokk ci ràmmekat yi kon lii tawfeex la joo xam ne ñun ñi fi teew ñëpp wax dëgg yàlla am nañ tawfeex ndax sëñ Fallou moo ñëw fekk suñu ci suñu biir te barab bi ñuy liggéeyloo wax la na leen fii moo liggéey jumaay Tuubaa te jumaay Tuubaa dafa kawe ci sëriñ bi dafa kawe ci Cheikh Amadou Fadel kon ku am ndigal ñu liggéey loola tool boo xam ne moo liggéey jumaay Tuubaa dafay mel ne yaa nga ca bokkoon ca ñu doon bay tool yi liggéey jumaay Tuubaa da koy fekk far nag Cheikh Amadou Fadel ñëw fekk la ci biir tool yi loolu ñetti tawfeex la joo xam ne yàlla bu ñu cat jiitu ci lenn yàlla buñ ci gis suñ bopp yàlla nañ ci dajee ngërëmul xaadim rasul te saytaane bañ cee amu yoon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñun dañ cee bëgg ba mënuñ cee yëkkati kàddu ndax sëñ Mouhamadou Taqi mii tey bu way juróom yi dellu si woon du soppi jataay te lam ko sàmmaloo woon diggante mook bokkam yi loola dara sooxewu ci ndax kenn ku ne gis na ni ko fi nawlem yi fekkee nga xam ne kon seen diggante moom rafetal na ko ndax nit ku ne nam la def rek noonu nga koy def te moom mii dey euh, dafa am loo xam ne sëñ Abdou da ko mas a wax daa wax ne am na loo xam ne ku ko jël ci doomu aadama gas suula fa des ñu ne mbàkke loolay lan mun a yëg nee doomu aadama bu fekkee yëgoo ne mu ngi dund rek moo ngi ñu faatoo yem ci yow kon lii mu am nii yëg-yëg moo ko may te damay faral di wax ni taalibe ak sàggantem mu ngi dalee ci sëriñ bi joxe ndigal mu ne naa yebal sama euh, surga càgganteeg taalibe foofu la yeme walla awma jot sëriñ bi bés bu ndigal rotee ci moom ndigal dañuy wax ni bëri gule ci kaw mbartal boo ci laalee sa loxo dana dem boo ci laalut sa loxo dana dem kon moom mii tey ndigal lii bi mu jógee rot ci kawam ku gis ni ko ñii wëree nga xam ne tey bu benn taalu taalibeem ñëwutoon it liñ ko sant moom dana sotti kon nañ feddaliwaat laxasaay yi te xam fan lañ jëm ndax euh, sëriñ tubaakat kat lennam kenn mënu cee jariñu te sonnoo dañoo mas a nekk foofu kër sëñ Afe am foto jumaa ji nekk fa sëñ xabaan Mbàkke ma ne photo bii de dafa mel ni mbaam mii ci nekk nii seretu mbaam boobu mu ngi jàll nii ñu foto ko ma ne daa mel ni seretu mbaam bii de moo ko xaw a soboote mu ne déedéet seretu mbaam bi misaal la ci jumaa ji dañ lay wan ne bala ngaa jëriñu ci jumaa ji faaw nga mel ni mbaam bi kon nañ góorgóorlu bu baax fedd liwaat laxasaay te xam ne lenn lenn lenn loo xam ne doomu aadama mën na koo am ci lu baax te sonnoo mënta am waaw nañ góorgóorlu waat feddli waat laxasaay yi te xam ne ki ñu ki kii nga xam ne moom la leen suñ borom booleel nga xam ne way juróom bi moo dem bàyyi leen ak moom ku ko jàpp jàpp ngëb sëriñ ndax li gën a jafe moom la def tabe ci sa daraja te sëñ sëñ mot sekk mii ku ko xam xam ne ku tabe ci darajaam la te it ku am yëg-yëg ci doomu aadama yi la ñu ngi jégalu bu baax ndax ñu ngi guddal sëñ Abdoulaat Bousso sant nañ leen bu baax sëñ Ilimaan ah wax dëgg yàlla de nañ ñu ngi gën a feddali ko daal. jërëjëf sëñ Mourtala yow ka daanaka daa mel ni li olof yi wax luqi lañ ci jàmbur danga ma koo def Cheikh sant nan sunu xol sedd na guy sëñ Ilimaan jërë ngeen jëfati. koo ne xaw ma nu ma koy def na mu la def a tax te ñun de gis nañ ni ngeen ko jàppee gis nañ it fi ngeen ko teg gis nañu it lim leen jaral te kii de ku ko jàpp ku ne ñun nga jàppale ndax kat maa ngi jéggulu ci waxin wi waaye fi mu ne kan nun mbooloo mu ñu dem lu mbooloo ma bari bari bari buñ fa gisul njabootoog suñ falu sekk tàqi jàpp nañ ne mbooloo ma am na lu des kon sëñ bi noo ngi koy ñaanal tey sàkku ngeen ñaanalal ñu ko na fan yu gudd na wér na mucc ci ndog ci bëccëg wax naa ko sëñ Xaadim Mbàkke mi fi ñëwoon nee naa ko ñun de sant nañ lool ci ànd bii mu ànd ak noonu ndax wanuñu ci boppam dara dara dara sëriñ bi rek la ñu joxoñ te moom sëriñ bi lañuy ñuy wut sëriñ bi lañuy wër ti gis nga fi mu nekk nii képp koo xam ni kii da ngay sëriñ bi waxtu wuñ la seete gisuñu sëriñ bi ci yow xam nga kooku ni ñu koy def ni oto de def rond wër jàll barki suñu Bàmba kon jërë ngeen jëf ñun taalibe a amatuñu lay loolu yàgg naa ko wax lay amut de ku des yaa des suñ fàllu sekk waa juróom wu tedd wa lam daan def mboolem ñun ñii fi teew ñi ci tegul seen bët ñu néew la lam daan wax ñoo ngi koy dégg te moom mii fa tànkam wute wut ak moom ci jëf wute wut ak moom ci wax kon nit ñi topp ci ñoom amatuñu lay ndax doo diw gu ma doy na xaw ma kon nañ fedd liwaat sunuy laxasaay te xam ne liggéeyal sëriñ Tuubaa fi mu ne mooy li gën a gaaw yeggale nit ci yàlla man fedd liwaat sunuy laxasaay ab taalu bi dafa war a déglu ndigal dafa war a am yar dafa war a teg tegiin jël taalu bi teg ci seen kow bu ko defee rek lu mu bëgg dana ko am su ko deful nag man xaw ma ci moom dara. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.